والقلم وما يسطرون dañuy woo ki nga xam ne mooy euh, Seyda Adja Binta mu jege si euh, boo defee yi ngay dugal ba noppi rek mu daal di jël kàddoom insha allah xam ne Seyda Binta mi ñëw moom mooy invité d'honneur bi comme ni ñu ko waxee di nit koo xam ne dundam gépp ci alxuraan la ko passé di ci jàmbaar joo xam ne ay ay ay téeméeri téeméeri nit euh, mokkalanti loxoom ba léegi mu wéyal liggéey boobu tam yor ay daara yoo xam ne ay jirim la ci far di leen taxaw ñoo xam dañoo ñàkk seen ay waajur di ci liggéey liggéey bu am solo matal liggéey bi itam di ko defee ci façon boo xamante si ni bu euh, bu mucc ayib la sëñ sëñ Mbàkke muy ganu bis bi moom lañuy jox mu yëkkati kàddoom aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alqail bal huwa quraanum majid fi lawxin maxfuuz anzala alqur'aana fi suxufin mukarrama marfuucatin mutahhara bi aydi safara kiraamin barara wa salawaatu rabbi wa salaamuhu al atammaani al akmalaani ala nabiyi alqaa'il iqra'u alquran fa innahu ya'ti shafi'an li ashaabihi wa ala alihi altayyibin altahirin wa sahbihi alghurri almayamin wa man iqtafa hadiyahum ila yawmi ddin assaadatu alajilla منظمي هذه الحفلة التكريمية البهية أعضاء شركة C3S وعلى رأسهم مديرها الحاج سرين سك حفظه الله ورعاه إخوتنا وأخواتنا العاملين في مجالس في مجال تدريس القرآن لأبناء المسلمين أيها الجمع الكريم asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yu tedd yi ginnaaw sant yàlla googu ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm yàlla ak xéewalam yàlla na nekk ci kenn ku nekk ci yéen di leen ndokkeel ci weeru màgg wi di ñaan yàlla jaamu bu def nañ ko yàlla na ko nangu te yàlla na ko ful di nuyu bépp kilifa bu fi teew ci turam ak santam di ko wàcce ci wàccuwaayam te di ñaan ci sunu kilifa gi ñu fi dajale mu baal ñu jottalil ñu kilifa yi fi teew kenn ku nekk nuyoom mbokk yi ñu ngi yëkkati kàdduy ndokkeel ci sunu mbokk yi nga xam ne ñoom la yàlla baaxe ñu taxawal liggéey bu rëy liggéeyu alquran bu toll nii waaye di leen sant di ñaanal mbokk yi nga xam ne ñoo organiser jongante alquran ci yaatal mbind mbindum alquran ci C3S te jëwrin ji di ci sëriñ Seck yal na ko yàlla sàmm aar ko yàlla fay ko yàlla fay mbooleem ñi nga xamante ni ñu ngi jàppalanteeg moom ci liggéey bu ama am solo bi nga xamante ni moom lañ taxawe mu mel ni comme ni ko ñi ñu jiite waxe léegi mbir mbindum alquran loolu démbi islaam la ba tax na werante amul ni yool bi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala ko digee ci njàngum alquran ci àddina ak alaxira sikk amul ni ñi nga xam ne ñoom la yàlla baaxe ñu mokkal ko bind ko te xooluñu ko indi tomb yi maska yi taxawaay yi xëcc yi ñooñu fay googa am nañ ca lu baree baree bare yàlla nañ ko wërsëgloo ndax kat ñoom ñooy sabab ci ñu ñun ñu mën a jot ci alquran sunuy doom mën cee jot sunuy setitam mën cee jot kon xam naa li ñuy wax waa c s ak mboolem ñi leen di jàppale dañ leen di ndokkeel ci tawfiq ilaahi bi lii kat lu yàlla baaxe nit la waaye du xam-xam taxul nit mën ko taxawe am am taxul nit mën ko taxawe xel mu rëy itam taxul nit mën ko taxawe waaye yàlla mooy dimbali nit tànn ko pour mu mën a yëngatu ci téeram bi summa awrasna alkitaaba alladina stafayna min ibadina kon tànn boobu leen yàlla tànn ñu ngi leen ci ndokkeel di leen ci ñaanal yàlla na leen yàlla nangul nangul mbooleem kuy jullit mbokki tedd yi sunu mag ñu baax ñi fi nekkoon salaf yu baax yi day ñoom dañoo jëloon alquran yëkkati ko ba ci seen kaw bopp mu tiim leen ci lépp alquran nekk seen soxla guddi seen soxla bëccëg ci la ñuy xëy ci la ñuy yendu ci la ñuy fanaan kon alquran moo doon seen lépp ñu jëloon lu baree bari ci seen dund dugal ko féetale ko ci alquran daan nañ ko déglu lu baree bari daan nañ ko jàng lu baree bari waaye daan nañ ci tadabbur di ko seetantal di ko natt ci seen dund te loolu ñu ngi ko reye ci ki yàlla yónni ci ñun wàcce ci moom alquran muy sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni kaana xuluquhu alquran moom alquran moo daan léppam sallallahu alayhi wa sallam xam naa duñu def lu dul bu ñu yàlla baaxee ñu fekkee jongante bu mel nii bu amee nii solo mokkal alxuraan bind ko ci bind yu mel nii dañuy profité di ndokkeel sunu doom yi nga xam ne ñoom ñoo raw ci jongante bi waaye duñu wax ñooñu sax waaye képp koo xam ne bokk nga ci ndax jongante mu mel nii kat ñépp ñu ci bokk ay tànneef lañu kon dañuy profité di ndokkeel sax seeni jur di leen ñaanal yàlla tawfiq bi leen yàlla defal yàlla na nga ko wërsëgloo xanaa di profité rek di leen soññ di leen dénk ñu góor góorlu ba sàmmonteeg seen alquran ba mu mën a des ci ñoom sax ci ñoom ba ñu màggataale ko ndax defe naa ni jël nañu bind bu rëy ci sunu sëriñ bu baax bu tedd bi ñu woon léegi xam nga ni dem ba am juróom-ñett fukki at ak lu topp di bind alquran bind ko ci ñetti weer kon xam naa loolu doy na soññee ci sunu xale yi nga xam ne ñoom la yàlla baaxe sunu doom yi ñu raw ci concours bi ndax xam nga yonent bi alayhi salaam buy wax ni yowmal qiyaam dinañ wax koo xamante ni dafa jàngoon alquran mën ko iqra wartaqi warattili jàngal alquran nga yéeg ay daraja àjjana sa àjjana day yem ci fi sa mokkal yem mooy ki nga xam ne bi mu mokkalee alquran fexe na ba sàmmonteeg moom téye ko ba faatu ñu suulaale ko ci bàmmeelam mu dekkiwaale ko kon ku mel noonu moo tax sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu jàngal hadis bu mel nii kon xam naa dañuy tàllal suñ loxo ci képp koo xam ne jullit la mu dugal loxoom ci liggéey bu rëy bii di yaatal mbindum alquran moo xam xalaat la moo xam am am la ñu indi jàppale sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci C3S ci liggéey bu rëy bii ndax ñuy ñaan yàlla yàlla dimbali ñu ñu dund ba sunu daara yi téere yañ jàng mu nekk mbind moo xam ni sunu loxoy doom yi la te lool bu boobaa dina neex dina am solo te loolu dina nekk jëm kanam lool lu ko defee ñu ngi profitoo nag di ñaanal waa C3S di ñaanal jëwrin ji ak mboolem ñi leen di jàppale barke bi yàlla def ci alquran yàlla na ko yàlla def ci société bi def ko ci mboolem société yi nga xamante ni moom la jullit yor senikoo ak yeneen yi mel ni moom ndegam alxuraan bis bi ko yàlla wàcce rek la wax ni laylatul qadr xayrun min alfi shahr bis boo xamante ni weer woo xam ni bis boo xam ne moo gën junni weer sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam gën yonent yi nekk seen njiit waaye aw xeetam te loolu lépp ci barkeeb alquran la kon yàlla na ko yàlla wàccee ci waa C3S ak ci waa seniko ak ci ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi mel ni ñoom kon incha allah ñu ngi leen di ñaanal yal na yàlla gis leen gis na leen sax yal na yàlla nangu seen liggéey yàlla yokk barke bi waa alfu shukrin lakum ala hadha tashrifi lana kon ci turu mbokk yi ñu àndal yépp nag ñi nga xamante ni ànd nañu ñoom ñu fekkee ci liggéey bu am solo bi ñu ngi leen di sargal ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di sant ci ni ngeen ñu baaxee ak ni ngeen ñu cërale ci bisu alxuraan bi nga xam ni ku ñëw sa bopp nga ñëwal ndax wuy si woote yàlla yow yaa ciy jariñu kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci ñaanal di ñaan yàlla yal na yàlla barkeel liggéey bi waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sallam jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Adja Binta ñu jaajëfal ko baax ci kàddu yu rafet yu am solo yi nga xam ne moom la indi defe naa tànn gi ñu ko tànn def ko mu nekk invité de u jotaay bi juumuñu ndax taxawaayam ci alxuraan ni ñu ko waxee laataa ñu koy jox kàddu anta bi ni'mati rabbika bi majnun